Allah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 بلغ الرساله وادى الامانه ونسها الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين حتى اتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقبت الليل والنهار الى يوم الدين اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فانه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه ايها المسلمون التمسك بالكتاب والسنه هو اساس واصل النجاه في الدنيا والاخره قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ابن كثير رحمه الله واعتصموا بحبل الله قيل بعهد الله وقيل القران قال ابن عباس رضي الله عنهما تمسكوا بدين الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو الجماعه ثم ان الكتاب والسنه اصلان كبيران لهذا الدين لانهما ركن من اركان الايمان فمن كفر بالكتاب او بالسنه فقد كفر بالاسلام كله فعلى كل مسلم ان يؤمن بالكتاب والسنه وان يعزمهما ويجلهما ويخدمهما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب كما انه يجب على كل مسلم الاذعان لله ورسوله والاعتقاد بوجوب التزام الكتاب والسنه ووجوب متابعه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم والاعتصام بالكتاب والسنه والتمسك بهما على فهم السلف الصالح وهم الصحابه والتابعون لهم باحسان وائمه المسلمين قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا والمسلم في كل وقت وعلى اي حال يرد امره الى الكتاب يرد امره الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا قال الامام ابن كثير رحمه الله قال المجاهد وغير واحد من السلف اي الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد النازع في ذلك إلى الكتاب وإلى السنة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عباد الله اللهكم ويا الله سبحانه وتعالى ويتيغنا وإمامنا وينوارني ننتغتيا كين الله سبحانه وتعالى أيان كمنه كمنه بيغان قوانا انتيجي كمنه بيغان قوانا مامه كمنه انتيغان دمبالي ونسلي النبي مغا صلى الله عليه وسلم wana duwadanga wana alla ñaaga alla ganna i xeeringa a ganna jiidi ke annabi ñimme kamma maremme ke annabi ñimme a durukoto wotanga durukotoyen po timmante bawone amu bogu duna illa moro killen kamma kille be awrum maɗa suhban ma subane wallahi yemme wo yemme sunti ñengene ke kille kamma illa aga feti ken ñemme gen halkinti yemme ña maremme ke ngana dangi ñi wasuni nduda ñi wasunu kakada allahn kanne wonan kena allah e gundo nga wonan kena allah e bangaye وننكنا الله يا ونا قول سيري قولي وننكنا الله يا ونا سف سيري سفا ونكنا الله ونا خير يا ترى أم غبون ترى mare mengi wosulu njudanga de allah kanne wosu be allah go wosu yemmu be ni geri okuri en kare allah wosi danga allah kanne nyangi wosu khaga danga allah kanne mare me kengana dangi wana tu nanti nan tikiti allah kitabe nan tikiti faren cunnanga sallallahu alaihi wasallam maremme sellanga takke mulla maremme sellanga wulliñinta humulla maremme sellanga mulla allah gi xeeringa aga jiidinan kammanga dunaya katta lahara garini maremme annan tigiti allah kitabe nga annan tigiti farsene nga sallallahu alayhi wa sallam sunna nga maremme yemme wo yemme su agemu golli qur'anin kamma agama golli qur'anin nyamirti finin kamma agama golli qur'anin kiten kamma agama golli faren cunnan kamma annatu nanti mare men nan khafunya kamma bawni selanga mu langa takderen kitu dunaya ado lahara anga mu langa nyan wulin tenga duna ado lahara man nan tigiti fare man nan tigiti allah kitabe nga man nan golita allah kitabe nga nan tigiti fare sene nga sallallahu alaihi wasallama asunnanya ho allah subhanahu wa taala agro nyamir mo khombe kallanke ndali nanti wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu allah gango ngangu no nyamiri nanti wonan tigiti kace wonan maga bohi bakme wana mak wali bakme wana mak mesohi yaranga na yile kati lali lalimin ndiga bunga wa tasimu hablillah ani nyina ibnu kathir ti hablullah wuren manne nyina be laydu be ga odo allah subhanahu wa ta'ala naka ayan ahdullah ay allah nyina nga wana raga wana makhu wana makhu fogu agen alquran ay leren khadi ati awren man wa tasimu hablillah ibnu abbas kemuren manne tamassaku bi dinillah ay wonan tigiti allah dina wonan tigiti allah qur'ani nga wonan tigiti farsene nga sallallahu alaihi wasallama asunna nga ibn abbas khati ibn mas'ud khati atawren manne awren jama'a nya wana wana to jaman no wana ma boxi bak jama ko ga tu mo gombe selama kun krindi kat ko fonya selama kun krindi kat jamanya selama kun no kaba wana pete bak me wana boxi bak me wana mewali bawol mewali ngalo me soxinde nga anto fofo jiji ni selami nga gifet lampunta ko falle ko o ga biren al hala kebe no ko ngo wacha mare me wana tu gadi nanti andu wori nanti kiti alla kitabe nangolli faren cundanga kunni lesiri khoro filli yake dinano ko bawni awren man dinal lanta timmene seren dinal lanta timmene seren cilama lanta timmene angam golñaatu qur'ani ngare kebe quoi seren cilama lanta timmene angam golña farse nenga sallallahu alaihi wasallam asunnan kamma wana tu nanti qur'ani ndo sunna qur'ani allah qur'ani ndo faren cunna kunniya rukunwa tontoani tontu khotoani silama ko kenogo bimana bane gana man ketan cilama ko bono angana ta anke ngron silamahu khan tongon nin tu qur'ani an kafirahu angana ta anke ngron silamahu kha anken tongon dit qur'ani nya angolin qur'ani nya kha faren cunnanga anken tu gollin ken kamma anna tu nanti an kafirahu bawni i filliyana domi iran to bokhini bakka iran to bokhini bakkame mare me anna tu nanti qur'ani ado faren cunna allah subhanahu wa ta'ala adoro kamanga woni raga woni doro adoro kamanga woni raga woni fin qorondi ho kallankenga daali dhalika wa man yuazzim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub mare ma yike fin khadi e qur'ane kedo sunna a wajibi kome su kamma a wajibi be su kamma annan du yankandi annan du yankandi ke qur'ane kedanga annan du yankandi faren cunnanda ngana tandanga annan du yankandi fa qur'ane ndanga annan du yankandi sunnanda awren manne qur'ane ngere kebe muram khanna debere imtithalu awamiri wajtinabi nawahi qur'anin garan nyamiri kebe malam melite an cemben kat filla nyara qur'anin garan kabaka kebe a tokono ngom maram me an cemben kat filla nyara farsenenga sallallahu alaihi wasallam aga bire mo gombe aga tere mo gombe aga sahaba nin karangundu mo gombe aga ro nyamer mo gombe aga kille be trace o kanenga mare me annan cukke do farin batenga sallallahu alaihi wasallam anna tunanti allah da khay alla lo ñamiri khadi nantu wona ñaaxe da batte kembre keta li farse nenga sallallahu alaihi wasallam asunnan kamma nantu ko nan golli sunnan kamma nan golli qur'anin kamma wajibi ñani ko kallanke nga dali fala wa rabbika la yu'minu alla kunati du nanti inti tongondini mukku inti tongondini mukku maga i nga ante timmene mukku hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum ما يغنا me wal fini beni igana me shogi fini beni inari katanke muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam anna kite laga anna karinaha انا كيت كي garagi كاي كما افدو نانت كيمبال wosede la ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت wa تسليما taslima angana kite ke gakra ina dungeti kite ke ina wase nyukuten kiteke ina wase mumin kiteke ina dunge kiteke ina ina du istislam istislam kamil totalement complètement nanti o duñeti faare nger keɓe ko o duñeti allah subhanahu wa taala ager keɓe ko marmi atu nanti allah subhanahu wa taala ɗo gongude wona kitabe keraga na soohi wona qurane laga na soohi walla wona faare laga na faren coohi nan togoto quranen coohi nde aɗo far sennenga sallllahu alayhi wa sallam ha soohi nde maremme atu nan tan boneña sarande sere sugere qurane ña tohi falle sere sugere farin cunna nya to nongo mare me tuite nanti bire keranti suror tuite nanti bire keranti lingono na qur'an to ampalle na farin cunna nga sallallahu alaihi wasallam na to ampalle alla dali falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim allahu akbar alla dal atu ono ono haqle to dude ono haqle to du qur'an qur'anin chokhin ono haqle to du woga farin cunna nga sallallahu alaihi wasallam wara sokhin bawlu faren cunnan cohinde an mana sarana an musibo nya saram an fitna ni nya saram ogana tan dang fitna digame an alogun tenyan kholenki oga biren waqti kebe lenci fitna ghala'ul ash'ar hada fitna lenki kagube sugalu sere sugene kagumenya angu wunu nanti fininga ishere manen kenya lanahu khalafna alkitaba wasu wasunna alfitna ayika fin fitna marme watu kubeni gado dunay lenki maɗum fitna ayi kafini fitnange lenki o saage sohno lenki wontaka fo kitti so ɗon caage sohno ganni woni sohno towna mbiriya lenko saage sohna nanti moy ñaay ko kitti oga kinni oga kinni joho hadi fitna ya hwan an ka wona doctrine malleni kenya anger kengori khalafna alkitaba wa wa sunna maɗum me aw adabun alim maxa kenu duna xalleña a ngana kara allah a mo allah a ngeran duñel gan ka xo allah da a ngana allah am jofe allah angar allah gotu ho farenga sallallahu alaihi wasallam agar ko mo khombe mare manganari angama angama allah gotu ho farengar allah gotu mo khombe angana daga bota ñimmu yonkirallimu walla ngana daga bowtu kille tana mare mi anna tunanti an tampi xafu ando allah gana gemu xumbene ana lollini jahannaba noxo mbana mare me anna tu kadi nanti ali atisabu bil kitabi was sunnan kadi nan tigiti qur'ani nga nan golli faren cunnan kama anyan kammo anyan ala fahmi salafi salih anyan ya salafu salih ser surube ni gero sawa o gana ni ser surun ko ser surube ni gero sawa ko ni khani kanan ko sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faren jahabani iyan kanan kunga wana labutu koyi gara labutu muhammed ma gasrobe ni igeri fare igama allah igama fare ngori ha igel soro wal soro be ni gel fare ngori ina tukundanga atta attabi'un wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ila yawmiddin tambire kata marem dinake anti anti nyana anga anga dinake de bedin tanyu mu hakkilin tuwahu tanyu mu gel famu mo gombe la دينا من ما قال الله وقال الرسول وقال الصحابه هذا هو الدين مع اخوان كم ركت مرمي كلان كندالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مسيرا اي والله سريو سريسو انغرا الله سوخ سريو سريسو انغر فارن شوخ سريو سريسو انغر غول كيدبري الله ما مورام كنو فارن ما نيامل كندو سريو سوغر كنشوخ نا كيلتا نابوتو بوتو ولا نا مؤمن نين كيلن تخنو نام كوي الله نامبال كوي نيا kembani mu wasede allah nan wuta nan tummindi jahannamu no ko wa sa'at masira wallahi sere ñalle xe mono sere be ñalle xe nga aga ña aga ña jahannaba ya marem ne ayi kafil sunna nga ayi kafil qur'anin tigi cinde nga ogere me wali fofo wona yille kat qur'anin nga ogere me wali fofo dinan kibaru ñan on yille kat allah kitabe ogama ñino wona yille kat fa senenga sallallahu alaihi wasallama e asunna nga خو الله قدالي مخمبه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله دا غنا ميسو فمبه ونا ساغا كات الله ني فاري بمعنى ونا يلاند كات قرآن ونا يلاند كات سنة غنا ني اوغو تونغوندي تا الله نانت كمينيان الوغو تونغوندي نانت لخيامان تان كوتانغي اتاند كيمور نا يلاند كات قرآن نا يلاند كات سنة kinya na ga patanga kenyana fosire bon angana yille kat qur'an angana yille kat sunna ante fo debrini khumbene jeliginde khumbene jeliginde ngada e batte maremme annatu khadinanti an qur'ane ke worde al amru bi akhdhi bi kulli ma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qur'ane ndo nyamiriya nanti farendo fofo gey wonan golle akamma ko allah ga dalimo khombe wama atakum rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab allati faren do fofo gari kattoy wona raga wona golli akamma faren garo kabba ko fofo wona lato bakkey malami ay ke fin khadinanti nangoli to qur'ani ado sunna min ahammil wajibat wa a'zamil qurbat nangoli to qur'ani ado sunna kenyano komel lagana agan tinkondin Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala kembere keta nawase golin qur'anin do sunna an man sarana an komel lagana agan latundin bakka Allah subhanahu wa ta'ala mare mesrebe ga mulanga kisi kisiyen kito duna ado lahara annan golli annan tenku faare allah subhanahu wa ta'ala kitaben kamanga ado faar senenga sallallahu alaihi wasallam asunnan kamma mare na ay kafini nan golli to qur'an ado sunna nan tera kamma awo kisin fitna ninga ado sankunta hunga ho ke sahabe dango kundu o sudu wor kebe ga senegal noko nan daga furem bagandi na bagandi kumben noko na raga na bi من نسيكي غير راجي غير بي هذا يخاف فهم يعني كده لماذا لانهم خالفوا الكتاب والسنه مرمي وسيت نانتي يغو نخراخو يغو بيغا دنيا يخري وسيت نانت غوليان غول نغارنيانغي غوليان غول نيخونتي خا اسكي سلاما كنت وانا بيا لا والله لا وكلا وسيت نانتي غول جيجن اغني سري يغو بيغا دنيا يخري سلاما كون كارا ادو فاميو بيغا سورون كارا انتباه afeto ko nan do longu longu ni londi ande kangu londi ande chakal londi ande yakhari nyirabe lonta yugu nyakhare nyanan wala ka ang tere ni tere moko wala ka ang sefe ni sefe moko yugu nyakhare nyanan la selama ko ngana ni sefe ni yugu nyakhra a sefe ni do golle kiya abate nan chebeti nanti yugori yiti me yugo adi me yugo kefi ho lut la shakka kengana sebeti sere wo sere su nan qawmu lut gankenya ande debere a sebeti provenu ilabe ogana ñu oga kiitin silama ku ña silama ku ndankari wa in kana silama ku mukhtalafun il meso woni kerne kamposo kha an kal kenya angana karkha wana tu ganan ti yugu nyagle anti bak al hala ni sikino ko al hala fanan man imma golle ke ay debirin ay tunanti ke silama ku mbaray ay tunanti golle ke anyakunte ñan ay tunanti golle ke abulunte ñan kha silama yan silama begin ay sallini ay sumin kha fasiqi ñan silam bure silam jasante ka kent bakka silama ko ke kadra hunno kent bakka limanan ka ko ke kadra hunno ko sahibu silamu usul ngar ko mo xombe wal fasiqul milli yuzul isyan lam yunfa anhu mutlaq al iman bimana limanan ka ko kem bege totalement ka wotin kedan muslim jasante muslim fasiq kembere keta kenga agana kara agana kara walli gana kite ngurunda kama yajri alayhi ahkam al islam on wankiniya won salli on wankiniya ولو بلوى وسالي ليا وتلا برسلامين كالغرونيا امره الى الله باوني مرتكب الكبيرين سربي اجري يانغ خورن دبر يانغ خورن من ما توعد بالعذاب او العقاب يانغ سفارين غير دنيا كفا كما ولا غير يانغ ما كفا اكما ان اكيد ان مرتكب الكبير اجل جنوب خورن دبر مذهب اهل السنه والجماعه في مرتكب الكبير ان امره الى الله اخبارنا الله مخمتا galani agar i'tiqad nan tiga golle ke be kama aminya ka fasi kha ku nyandro golle ke ma kha yadan ta ku do murte nyandro golle ke kha ay sallin ay sumin agana kara onu bulwa agana kara o wankini onu wankina agana kara o sallina ya amruhu ila allah akhbarin ha allah ma kiyan madhhab ahli sunna wal jamaa fi murtakib al kabir bi khilaf al mu'tazila mu'tazila antum huwa manzila bayna manzilati fi ad-dunya inti din dang mumin inti din dang kafir khala har kota ita gana kara agana kara atok yimbe no khanya antu bak harabala wal khawarij aidan khawarij nin ka ikhal ikhal ma khako ikunga itimanne ikuntiya atoko ngal mukhalladun finnar bimana agana kara arol jahannam no khanya antu bak ahlu sunnah la murtakibul kabir amruhu ila allah ma kha serebe gen gor jigen serebe gen yugu nyakhre ad avoli nanti iga kebe ampos silama ngel kebe ko ken kafirinya ken ka ken kafirinya ken bere kata ken murtadinya ona kite ngara ma kha atogon kadi serebe ayumuni ad avoli nanti iken gor iken gor jikenya ken bere kata marem har ganani kite ngana ni aga wurna kama ko han kawa kite ke wurndina kama ko han kawa kerni sere sugana girana angawa angan kawa kerni ba la sere begen kitana sultan abanan katta wutu anat khadke khadke nyangai kha nanti al ahkam tuqamu bil afrad nan sere sugana girta annan duran kita yogo formé nan tangi duran kita yogo sigindin la silama ko dungat ke ken mané kenga kebe tun awren mané nanti o ma alla kitabe mpamu o mu farsen nga sallallahu alaihi wasallam wama wama sunna wama sunna mpamu pembre keta wona ke gato bawli ke folake kundu nan to kaga wuli o gam siga kani igel bangan din dendeben khumbene ara irin fotana sara wala subhanahu wa ta'ala nyagana allah ga no famu li dinanga allah ga no yilani kati dina yilani mo sirenga aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li al muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah ala ihsanihi وشكره وتوفيقه على امتنانه دل عن النجد والتشبيه ليس كمثله شيء وهو سميع البصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وبعد بك جلتي غناو بني سانتي بروم سبحانه وتعالى جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم maa ngi jéeme تنكو ci lu ma تي wax ci kàllaama تي ci xutba bi xutba bi ci gàttal dama koy résumer maanaam lu mu doon wax dañu nit ku nek da nga wara tënku ci tere yàlla da nga wara tënku ci alquran nga tënku ci su ci sunna bi mana da nga wara terele sa mbir kom borom bi subhanahu wa taala numu mu la santa numu mu la santaane wala da nga wara terele sa mbir ci walu diine comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam numu digel da nga wara jàpp tere yàlla bi nga jàpp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëggu texe boo bëggee texe ci àdduna ak ci àllaaxira boo muggee mucc ci àdduna nga mucc ci àllaaxira amul beneen yoon lu dul nga jàpp lu yàlla wax nga jàpp lu yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam jafee lu borom bi wax jafee lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci li nga mun ci sa kattan boo bàyyee ñaar yi nga demaat leneen yaangi nax sa bopp ndaxte munoo am ay yiw munoo am yoon bu lay texe yoon bu gën alquran munoo am yoon buy texe boo ko jëlee mu la yóbbu la aljan yoon bu gën yonente bi salallahu alayhi wa sallama indi yàlla yónnil ma samba yàlla yónnil ma demba kan la yóni yonente bi kan la wax nañ ko rey yonente bi salallahu alayhi wa sallam kon boo buggee texe aduna boo buggee mucc aduna ak alaxira liggéeyal lu alquran wax liggéeyal lu sunna wax ndaxte bàyyi ñàkk liggéey li alquran wax ñàkk liggéey lu sunna wax lu muy jur ci doomu aadama dafa bëri ay mbugal rek lay jur ay problème rek lay jur ay fitna rek lay juru comme lu ñu doon dundee ci suñu àdduna bi léegi alquran loolu la wax nee ne nañu wattandikoo nañu moytu di juuyoo alquran di juuyoo ak sunna ndaxte juyo alquran ak juyoo ay sunna lan lay juraat day juraat ay fitna day jurat ay musiba ay problème comme musiba yu ñuy dundee tey nii borom kër bu nekk yaa ngi yuux mbir yi cher na yëf yi cher na nañu laaj suñu bopp lu tax yëf yi cher parce que alquran dañoo sori sunna dañoo sori njàngale alquran dañoo sori njàngale sunna feebar yi bari na lombe na wala feebar yi lombewul ci ci jamono dañu laaj suñu bopp kàccoor yi bari na lu tax lool loolu yëpp ci fitna bi la bokk ndax juyoo alquran ak juyoo sunna fitna rek lay jur wallahi boo boo boo teree sa mbir lu yàlla wax wax ma doo juum de mais doo doo juum juumte bu bu rëy mais ñàkk xam alquran ñàkk xam ay sunna day waral lu bari comme barki démb lu mu juraat fi dem suli neew lakk ko loolu ban diina la ku la wax nga lakk ko ku la wax boo ko suuli da nga ko war a làkk ku la ko wax ngir lan ñu ne góor jigéen la est-ce que am nga ci lu wóor góor jigéen la góor jigéen wax la walla góor jigéen sol la wala góor jigéen ci jëf la góor jigéen lislaam bu waxee góor jigéen ci jëf la góor jigéen kenn nangu ko ñun ñépp a koy ñaawal maanaam képp kuy def góor jigéen jullit buy def góor jigéen jullit bu yees la jullit bu bu yees la mais waxuñu bu ree bu dee bu leen ko suul waxuñu bu bu leen ko suul ci armeel jullit yi waxuñu bu dee nañ ko lakk déedéet attee góor jigéen bu saxee bu amee bu fekkee dañuy liggéey sharia sharia rey na ko donte wuute na façon rey bi bi koy reyee mais bu amee dégg-dégg maanaam avoli ko ñaar la imam moom mu ñëw avoli ko wala ñi gis ko ni ñeent nit gis ko seede ñeent ñu gis ko def na ko wala ki kay àtte moom xam na kii def na jëfu def na jëf bi bu fekkee dañuy àtte lislaam bi islaam rey na ko même bu ñuy rey kan moo koy rey moom mbir lu koo xamante ne moo yore mbir yi kilifa bi mooy joxe ndigal mais du ku nekk ngay jóg ngay faj sa bopp bu fekkee ku nekk boo mere yaay faj sa bopp gendarme yi policiers yi tribunaux yi kon lan mooy njëriñam nit booy faj sa bopp da ngay dugg erreur rek bu fekkente ne nekkuñu réew buy àttee lislaam góor jigéen boobu su fekkee da doon julli da doon woor mais day def jëfu góor jigéen dañuy wax muslim la jullit la mais jullit faasix la bu dee dafoo yare comme jullit ni mu yore ay àtte dañ koy sangu dañ koy suul dañ koy jullee nañu àttam boomam moo ko yor dem naa ba ñu wax jëbbal nañ ko boroo boromam boromam moo koy xool du ñun ñoo koy atte loolu mooy mazhabu ahlu sunna wal jamaa fi murtakibil al kabir kuy def bakkaar bu rey bakkaar bu rey du góor jigéen kase am na bu gën a rey góor jigéen mooy bokkaale yàlla bi te réew mi lëmbee na ko chaque jour ñu ngi dégg nit taxaw ne man yàlla la diw yàlla la booba gën a rey góoru jigéen te kenn waxu ci te booba gën a rey góoru jigéen ndaxte góor jigéen du yéefeer maanaam eggagul point yéefeer xanaa moom bu gis góor jigéen bi lislaam mu wax du dëgg bu boobaa lay nekk yéefeer mais bu fekkee moom nangu na lii ñaaw na mais xëy na dafa neew doole wala dafa am leneen moo ko yóbbu mais day julli day woor jullit la moo gën bokkaalekat bi bu boobaa day jël atte lislaam bu fekkee réew yoo xamante ne attewul sharia kooku kenn waru ko def bu dee comme que mu ngi doon julli dañ koy julli dañ koy suul armeel jullit yi yéeféer sax bu dee dañu ne bul sulli armel julli yi mais kenn waxul nga lakk ko doomu aadama la nag doomu adama dafa dafa fort te lislaam diin boo xamante ne diina yor mànde la du diina diina boo xamante ne diina wow xol la lii yëpp boo ko gisee mbokku jullit yi lan moo ñu ko yóbbee xam nga lan moo ñu ko yóbbee ñak déggo ñak ñàkk liggéey alquran ak ñak liggéey sunna bu baba bu ñu bëggé texe bu ñu bëggé yëf yëp tek ci yoon nañu dello kitab nañu yelle ci téré yàlla nañu dello ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اللهم يا الله اللهم يا الله انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين اللهم عليك اليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والشيعة ومن شايعهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالإسرائيل اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم أجائب قدرتك اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا ذا الجلال والإكرام عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله